jërë ngeen jëf mbokki internet te suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay li gën a ci xibaar yi dañ koy dooree li jëm nag ci kàddu yi nga xam ne njiitul Pastef Ousmane Sonko daj na ko yëkkati ñeel nag loi d'amnistie bi nga xamante ni daj woon nañ ko voté foofule ca assemblée nationale ci régime bu Macky Sall ngir nag kon ñu daal di effacé bépp boo xamante ni daaj woon nañ ko amal ci atuma 2021 jëm nag atuma 2023 moom leader bu Pastef nag mu ngay xamle di rek. Ah, bu ñu jëlee majorité foofulee ci assemblée nationale dinañu retiré nag boobule loi d'amnistie yuy lee kàddu nag mu daal di ko yëkkati ni ki démb ci campagne électorale bi nga xam ne ñu ko doon amal foofulee ca diwaanu Ziguinchor moom nag mu ngay xamle ni mosuñoo d'accord jëm nag ci boobule loi d'amnistie ah, ba tax nag ci ay kàddu mu ngay xamle ni nag boobule loi d'amnistie kon bu ñu amee majorité ci assemblée nationale faw rekk ñu daal di koy effacer ngir nag kon ñu daal di topp ñi nga xamante ni rek jot nañoo def ay ñaawteef ci diggante atuma 2021 jëm nag atuma 2023 ci nag nooy tamit daal di woon artu ñenn ci ay journaliste yi nga xamante ni dañ doon joxe ay fausse nouvelle jëm nag ci affectation question yoo xamante ni dafay révéler la sécurité nationale moom Ousmane Sonko nag mu daal di xam le ni loolee nag duñ ko foowee benn yoon ba tax nag amu xam le ni kon képp koo xamante ni rek daj rek ngay àddu jëm ci mbir moom mee dinañ la daal di yóbbu foofule ca prison bu rëbës